plastique mhm. waaw jërëjëf Mélanie donc euh, soit plastique maanaam damay jàpp ne rek mbiru suñu borom la lu mu def ci man. Mhm. parce que euh, xëy na euh, li ñu war a mën a dugg bëri na. donc euh, xëy na bu la yàlla nattoo donc euh, sa xam-xam soriwul ci wàllum euh, école. Mhm. donc war ngaa gëstu loo xamante ni bu ëllëgee war nga cee mën a yor sa bopp yor ci sa njaboot. Mhm. donc loolu moom moo ñu indi ci liggéeyum plastique. Mhm. ñu dem ba ci toll ci foo xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ ni yàqu-yàqu yi muy def bari na. waaye njëriñ li mu mën a indi tamit. bari na te loolu yëpp dara waralu ko lu dul ñàkk xam. donc ci gëstu yooyu moom moo ñu permettre tey vraiment. ñu gis ne sàgg ne nañ ko mhm. mais mi ngi génne lu baree baree bari ci koom-koom mu ngi génne lu bari bari ci koom-koom waaye tamit tey jii boo jëlee plastique yan produit lañ ci mën a tey tey plastique liñ ci mën a génnee mhm. bëri na gis nga lii ay pavé la tey boo xoolee tey ndakaaru li ko wër lépp daanaka ciment la mhm. suuf beton ciment mhm. mais li ëpp ci plastique yi nga xamante ni tey dañ koy jël di ko lakk muy yàq sunu atmosphère wala ñu koy gas ci suuf di ko suul muy yàq suuf si tey loolu lañu jël di ko transformer mën nañ ci génne pavé mën nañ ci génne ay briques mais mën nañ ci génnee tamit li nga xamante ni moom mooy gasoil yi nga xamante ni moom la oto yi di dawee te mhm. loolu yëpp mu ngi ci biir plastique bi parce que soo xoolee plastique bi base bi yëpp c'est à partir du pétrole mhm. donc mu nekk loo xamante ni tey koom-koom bu bëri la mën a jur mhm. waaye tey dañoo dem ba jël plastique boobu soppaliko loo xamante ni ay feebar rek lay jur ci askan bi. Mm-hmm. d'accord tey jii ngeen mën a am euh, matière yi nii naka ngeen di naka ngeen di doxalee étape yi nga xamante ne moom ngeen di jaar ba tey jii bi ngeen jël ko ba mu ñëw ba am forme ba nekk pavé comme ni ñuy gis rek euh, gis nga pën yaa ngi ni tamit ngeen jël ko di ci def ay affaire yoo xamante euh, maanaam am na maanaa torop xam nga tey boo xoolee recyclage plastique donc ñun du yoon sax ñu di ko def. parce que condition yi muy laaj maanaam ci wàllum protection ak ci gox ba nga ko war a defee. Mm. yooyu yëpp dafay laaj ay mesures yoo xamante nii da nga ko war a seet. parce que yaa ngi defar loo xamante ni xëy na mën na indi njëriñ ci askan wi. Mm. mais soo amul sens mu indi benn njeexital ci wér-gu-yaramu askan wi. Mm. moo tax yu ci bëri donc dinañu wane exemple pour wane ne mën nañ ci def nangam mën nañ ci def nangam mais. amuñu possibilité parce que pour nga mën koo liggéey transformer ko dëggantaan faaw doo jege population bi. Mm-hmm. yow ci sa wàllu wér gi yaram war ngaa protéger sa bopp ba nga xamante nii li ngay liggéey du la indil benn gàllankoor. protéger sa bopp boobu noonu noonu. Mm-hmm. nooy protéger wu. donc protéger sa bopp bi mm-hmm. bokk na ci fexe ba saxaar si du la dugg. fi nga koy togg it saxaar si mën a bañ a déborder bay dem ci ñeneen. parce saxaar dafa garaaw. mën na day dem dem goo xamante ni. yaa ngi lor koo xamante ni xëy na mosuleen a gisante mm. mën na romb nii rek saxaar si dugg ko parce que ñi amee feebaru asthme ñooñu ñëpp danga leen di sóor mm. donc loolu war nga am ay mesures de protection yu bëri yoo xamante ni ni nga koy sàmmee sa bopp noonu nga war a sàmmee ñi nga xamante ni gisoo leen donc mais transformation yooyu fan ngeen koy defee exactement est-ce que war ngeen ko mën a def n'importe où sachant que dafa am ay. Euh, gàllankoor gàllankoor yu bari muy àndal. waaw moo tax nag xam nga liggéeyam yéex fii. Mm-hmm. parce que lu tax mënoo ko transformer fii. Mm-hmm. parce que ñun Dakar lañ dëkk. Mm-hmm. donc dakaar amoo fi benn milieu boo xamante nii war nga faa mën a dem di fa transformer plastique. ci ay pavé. faaw da ngay génn wala nga am benn secteur boo xamante nii bu isole la. Mhm. donc sori na population bi pour nga mën a def sa liggéey correctement. mais loolu boo ko amul mënoo koo def parce que boo ko defee fii rek. Mhm. yoon dafa war a dal ci sa kaw. personnellement fan nga koy defee yow. donc euh, li nga xamante nii ñu ngi koy defee actuellement nii donc euh, ñi ngi liggéey ci bassin bu Médina Gounass fa lañ nekk mais. transformé tuñu plastique bi. Mm. parce que danger lay doon. Mm. ci population bi parce que dañu nekk ci biir population bi. Mm. mais li nga xamante ni moom mooy ay panneaux yooyu. mën nañ ko transformer ay meubles ak yooyu parce que amul fumée. Mm-hmm. mais bu dee plastique bi danga koy togg. te mm-hmm. togg boobu fumée bi muy dégager donc euh, waxuma la yow mais mën nga lor ay nit ñu baree baree bare. tey jii nii buñ buñ si say kàddu euh, buñ la déggee ngay wax yaa ngi euh, dinañ mën a gis ni ki maanaam euh, plastique bi am na njëriñ yu bëri joo xamante ne mën nañu ko andil. Mhm. bu dul rek xeex bi nga xamante ne maanaam loraange gu muy indi ci environnement bi waaye mën na nekk d'une utilité boo xamante ne da koy defar doomu aadama. Mhm. ci noonu est-ce que gisoo ni jeunes yi war nañ ci mën a gën a entreprendre. Mhm. parce que ak tout de chômage bi nga xamante ne maanaam seetlu nañ ko fii nii fii ci réew mi. waaw xam nga dafa nekk mbir moo xamante ni loo ko bëgg bëgg bëgg. Mhm. te amoo moyen bi ci war. munoo cee liggéey. Mhm. loolu bokkoon na ci li nga xamante ni tey li ngeen gis nii ci image yi yëpp. donc bokkoon na ci li waral à partir de mois de juin bi ñu passé. Mhm. ma jóge Dakar. dox ba Saint-Louis. pour découvrir ay personnes yoo xamante nii maanaam seen xam-xam dafa màcc ci wàllum recyclage plastique. ñu daje ak ñoom waxtaan. mais ñooñu dañu nekk ay nit ñoo xamante ni tey amuñu doole boo xamante ni permettre na leen ñu mën a ñëw dakaar wala ñu am endroit boo xamante ni bu logique la bu ñu mën a liggéey correctement. Mm-hmm. loolu nag boo ko amul day nekk problème boo xamante ni doo ci dem. li ci liy tax mu mën a. taxaw ndaw ñi ñëpp mën cee soobu. Mm-hmm. mooy fexe ba état dugal ci loxoom. Mm-hmm. parce que réew mu toll ni Sénégal. ndakaar mhm. rek bés bu yàlla sàkk cinq millions mbuus la ñuy sànni par bés. Mhm. boo jëlee Sénégal gi yëpp par jour dinañ sànni plus de seize millions matière plastique. Mhm. te loolu yëpp koom-koom la boo xamante ni war naa mën a duggaat ci biir réew mi. mais fii li ëpp ci li ñuy def mooy déplacer problème bi. waaw dañuy jële fii mbalit yóbbu fee. te actuellement nii bu ngeen demee ci àll bi da ngay gis ne mbalit mi débordé na débordé goo xamante ni ay génération yi ngi ñëw. yoo xamante ni dinañ bëgg a bay dina leen të dinañ bëgg a sàmm dina leen të mm-hmm. parce que dañuy gas mbalit mi di ko suul te loolu yaakaar naa ni du solution bu baax mm-hmm. solution bi nag mooy fexe ba lii fi nekk ñu xool nan la ñuy def mu mën a jur njëriñ jur koom-koom ci askan wi mais li nga yor mënoo ko defar ba pare ngay jëggaani mbalitu jàmbur ñëw indi ko ci sa biir réew mm-hmm. donc ça pose problème lu ma bëgg a laaj yéen yéen ñi di liggéey ci plastique bi. dëgg la euh, dafa toxique. waxul euh, maanaam saxaaram dafa garaaw. <coughs> mais yéen. Euh, comme dangeen bëgg maanaam ñu développer seen secteur bi. lan ngeen di proposer. pour ñu proposer nit ñi kii bi. nguur gi ne leen ah ñu ne lii la ñu am. plastique bi am na njëriñ mën na régler lii. mën na def lii lan. Mhm. waaw nga expliqué lan la. xam nga proposition yi weesuwul ñu jël plastique bi toggal la ko ba génneel la ci gasoil ne la mën na dem ci oto ñu toggal la ko ba génneel la ci brique ne la am nga ay abri provisoire yoo xamante ni ay xale ñoo fay jàng mën nañ jël plastique boobu mu doon ay brique ñu génneel la ci ay pavé boo xoolee pavé yi nekk ndakaaru yëpp ciment la tey lii mën na remplacer ciment boobu parce que ciment boobu tey état mën na ko jël dugal ko feneen mm-hmm. mais ñu jël mbalit mi nga xamante nii ñu ngi koy kii ñu teg mais ci moment yi nga xamante ni donc da nga koy wane. Mm-hmm. ay solution da ngay gis ne ñi nga xamante ni ñoo war a saafara problème boobu. Mm-hmm. ñoom ñooy yokk problème. parce que moment bi ñuy def présentation bi. moment mm-hmm. bi ñuy def présentation bi. pour wane di ci anniversaire loi plastique bi. donc dañu gis ne le ministre de l'environnement dafa yóbbu soixante-dix tonnes Sococim pour ñu lakk ko. te ñun boobu ñu ngi wan ñu ngi koy wan ay solution ne ko mm-hmm. plastique bi mën nañ ko def nangam mën nañ ko def nangam mm-hmm. mais bu fekkente ni ñun ñi ngi rey suñu bopp mm-hmm. ñu indi ay solution ñoom ñu jël plastique bi dem di ko lakk donc kooku dalay leer ne yow ba ilaa yow mi di ni donc du la jàppale parce que moom xam-xamam ci lakk ko la toll waaw te plastique bi tey jii boo xoolee sunu lu bari ci biir réew mi tey. Mhm. dañ koy def dañ koy jënd ci bitim réew ñëw def ko ci biir réew mi te plastique la mën nañ ko liggéey. ci biir réew mais est-ce que jéem ngeen leen rencontré mbaa toogoo leen rek ci télévision par exemple. di wax euh, kàddu yi waaw xam nga tey ki ngay rencontré day fekk nga bëgg moom mu bëgg nga rencontré ko. Mhm. soo xoolee tey régime président Macky en commençant par Ali Haïdar mhm. ba fii ñuy wax ak yow xanaa la nouveau ministre de l'environnement donc Alioune Ndoye amagul contact. mais ñi fi jaar ñëpp amul koo xamante ni jàppalewuñ la liggéey ak yow ba président remercier la mais jamais nga retourner remercier ñi nga xamante ni ñoom ñoo la teg ci yoon wan la yi ngay jaar ba nga réussir mais loolu day poser problème bu baax a mm-hmm. baax a baax parce que soo xoolee tey environnement tey depuis ñaata at presque 2015 ba léegi ñu ngi indi ay solutions. Mm-hmm. ci tous les plans nag. mais réaction bi moom moo des ci ñoom. Mhm. mais ñun li ñu war ñun ñu ngi koy def saa su ne. gis nga Mélanie man li ma ci bëgg a wax rek mooy booy déglu. monsieur Fall nga xam ne li muy wax dafa solo non seulement actuellement jeunes yi ñoo ngi euh, jël gaal gi pour dem dem bitim réew pourquoi pas état du Sénégal du taxawal benn société wala benn entreprise mu jox leen ko pour pas sax yow doo ko jiite. Mhm. parce que ñëpp xam nañ la ci euh, domaine plastique yàgg nga di ci di ci wax. Euh, di di di def ay sensibilisation mhm. kon ñu xam ne te yow sa yéene ci côté plastique pour avancement du pays mhm. dafa dafa dafa dayoo. donc tey jii nii man je pense que ki nga xam xamante ne yaa ngi ko gis tout le temps moo ngi wax moo ngi ànd ak ay ndaw mhm. di liggéey ak ñoom ñoom mhm. war ñu xaar sax moom mu ñëw ci ñoom ñoom ñoo war a def seen i délégation mhm. ñëw dem ci moom waxtaan ak moom parce que gis nañ parfois waaye politique mun nañ déplacé dem dem gis kenn benn nit parce que dañuy xam ne kooku sur le plan économique autant pour apporter dara peut ay nit wala mbooloo mais kii ki nga xamante ne xam ne tey lii boo fi defee société recruter bëri bëri mhm. ñu mun a am xëy bay yem seulement ci marchand ambulant marchand ambulant ak a ñoo bëri fii ci mhm. réew mi mhm. récemment gis nañu fii ci liberté 6 euh, ba ñu yëkkatee ay marchand ambulant kon tey jii ñoo ñëpp mën na ñëw retrouver gis seen bopp ci boobu entreprise wala ci boobu société ba nga xamante ne euh, avec la complicité de l' état mun a jàppale ñoom monsieur Fall xam nga dama lay wax benn affaire boo xam ne moo am moom wax na ko sànq ñu jël plastique bi di ci benn euh, usine pour di koy xam nga euh, ñoom am nañu ay idées mhm. mais malheureusement dañoo nekk ci benn état boo xam ne benn Sénégal wala ñu nekk Afrique mhm. ñun xamuñu avancement ñun duñu avancé parce que xam nga lu euh, ma jox kaaw rek euh, maanaam recyclage mhm. recyclage yu li nga xam ne moom mooy xombalit bi mais man depuis bi man boo voyagé boo voyagé da ngay dem ci euh, dëkk yi. Mhm. da ngay gis euh, maanaam dañuy teg benn euh, kiiwu poubelle. Mhm. fii la ñuy dugal plastique. Mhm. fii lañuy ñuy dugal këy. fii la ñuy dugal verre. comprendre nga. fu nekk léegi ñoom loolu dañ koy jël plastique bi dañ koy jël dem yóbbu ko dégg nga defaraat ko maanaam ñu mel nii. ñoo fay nekk am seen xalaat. ñoom ñu jël ñëw defal leen ko. Qatar bii ma jugee nii c'est la même chose. da ngay da ngay gis da yow boo ñëwee da ngay xam ne que fii place dangay gis ni oh, nga waaj day toog ci machine bi nii. Hmm. ba gars yi pare ba gars yi eh, ñëw ci mbali bi ba sànni. mu jël di koy dugal machine boobu moo koy transformé transformé defar ko li ne ñu jël ko ñii def ko lii. ñii def ko lii ñii def ko lii xam nga. c'est que ñun ñoo bëggul avancer. Ah ñun ñoo bëggul avancer. parce que boo tukkee ngay xam ne que ñun nii que ñun que ñun. ñu avancé wu ñu dellu <laughs> mais loolu tamit dafay dafay indi benn question mooy ma ko bëggoon laaj rek est-ce que moom mi ñoom ñoom en personne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci lii est-ce que ñu ngi def ay effort mm-hmm. maanaam pour ma jéem a moderniser ci nga xamante ne dugg ci modernisation li nga liggéey bi nga xam ne ñoom ñoom koy def tamit parce que ñu ngi liggéey ñu ngi ci àll bi ñu ngi lii mais tamit est-ce que xalaat nañ ko def benn entreprise mm-hmm. comme ni ñu koy waxee am seen entreprise bopp mm-hmm. mun cee nit a jëm kanam bañ a toog rek ci àll bi def li ngeen di def rek tamit toog àll l'archaïque quoi ngeen mhm. jëm daal vers la modernisation est-ce que tamit vous avez pensé à ça euh, loolu tamit parce que ci loolu mooy tax tamit ngeen gis ne leen euh, yenn secteur yoo xam ne euh, vraiment am na ñu ci am mhm. moyen mhm. dem jëli bi indi ko Sénégal def xam nga yooyu yëpp leen si dëgg la vous n'avez pas a ngi jéem ci loolu waaw xam nga tey boo xoolee li fi nekk ci ay ndaw yëpp ñu ci ëpp ci Sénégal ñiy yëngu ci wàllum recyclage maanaam bu dul tubaab bi moo leen dimbali di leen financer ay fonds ñu mën a liggéey du état bu Sénégal parce que fii dañu jàpp ne environnement c'est pas une priorité c'est pas une priorité parce que loolu bokk na ci tey jii tey man mii di wax ak yow li tax ñu dàq ma ministère de l'environnement mhm. c'est ça mi c'est ça parce que am naa fa contrat. Hmm. deux ans mais bi hmm. contrat bi gis nga dàq boo xamante ni waxuñu la toogal waxuñu la dara. c'est juste c'est juste pour te dire que ni. Hmm. priorité environnement du priorité. parce que bu doon priorité donc mënuñu seetaan. ay industrie ñëw fii ci biir réew mi di indi matière yoo xamante ni amul benn usine bu ko mën a recycler fii ci biir Sénégal. lakk rek wala gas suul moo fi am. donc yooyu tey boo demee ba di ko dénoncer. Mhm. donc ñu ne da wax li nga xamante ni loolu la ministre bi wax. Mhm. da ngay yem foofu ñun fii lañ dëkk ci réew mi. Mhm. bu ñu xasee réew mi ne dafa salte mais ñun ñëpp la ñu xas. kon bu ñu taxawee pour indi solution état war na mën a appuyer. ci solution yooyu. mais lii ngay wax lii ngay kii xam nga loolu baaxul. ñaata industrie ñoo fi nekk plus de 400 yoo xamante ni ay clandestins lañ dañuy defar mbuusu ndox mbuusu ndox yooyu yëpp fan la jëm. dañ koy mhm. sànni ci mbedd mhm, mi man def naa li ma mën xeex ak ñoom ba tey fi mu nekk nii ñoom ñu pare ne mën nañu jënd seen déchet le kilo à trois cent francs mhm. ma ñëw indi ko teg ko ci taabal bi état rejeté ko lu ma ci mën lu ma ci dara question bi ma la laajte mooy maanaam est lii ngeen xamante ne yéen nañ ciy yëngu mhm. est-ce que xalaat ngeen yéen ñi nga xamante ne acteurs yi nga xam parce que du ci yow kese mhm. am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci mbirum lii mhm. maanaam tey ji bu ngeen formé benn association wala ngeen am lu ngeen formé pour maanaam am loo xamante ne da ngeen koy taxawal ñu xam ne lii dañ euh, ñi ñii di def ay ñii di def transformation ay recyclage ak yooyu ñoo taxawal entreprise bii nii maanaam est-ce que am ngeen volonté boobu boo xam ne dafa jóge d'abord ci yéen xoolal volonté bu ko sax am nañu ko il suffit que rek ñu am possibilité suñu kilifa yi may ñu autour d'une table ñu toog même bu dee dix la ñu mm-hmm. déglu ñu teg leen ci yi boo xamante nii dinañu permettre ouverture bu rëy dina am mm-hmm. parce que tey fi mu nekk ni impact environnemental yi da nga koy sóor ba nga xamante nii mm-hmm. il fallait nga génn Dakar yëpp pour mën a am benn industrie boo xamante nii même bu dee local la sax foofu ngay mën a nekk di liggéey mm. mais bu fekkente nii amoo moyen yooyu donc li la partenaire bi di jàppale moom ngay liggéey donc mhm. li nga mën ngay def parce que souvent da ngay gis ne donc ci yenn secteurs yi mhm. dañuy récupérer mbalit yi donc def ko ci ay gurru mhm. donc créer ci ay euh, nu mu si ay bancs publique mais souvent yooyu tôt ou tard day am njeexital parce que yaa ngi créer benn gaz boo xamante ni saa bu bouteille bi bëtee rek mën na indi loraange ci xale boobu di toog foofu wala mag moom di fa toog parce que mbalit la moo jël bu bëree bëri def ko ci bidey bouteille yu dix litres mhm. tëj ko cimenté ko tôt ou tard mbalit moom mi ngi sur place yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante nii bu ñu amul possibilité pour mën koo def. Mhm. donc day xaw a métti. waxoon na waxu carburant nest am am na lim fi waxoon ne nee si oto yi lañ ah, koy yóbbu. d'accord dañ koy transformer ba mu nekkee waaye bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ne moom lañ ko xam moom lañ ko xamee muy sensibilisation bi nga xamante ne rek da koy def euh, mhm. mu soxal euh, ci euh, environnement bi. Mhm. nekk tamit di ko jëmle tamit ci nga xamante ne mooy population bi. yow Modou Fall est-ce que yaa ngi gis ni kii sensibilisation bi ngay def am na impact. ci environnement bi ak euh, ci euh, comportement sénégalais yi. Mhm. waaw tey soo xoolee tey sensibilisation bi ñuy def. Mhm. am na impact bu rëy. Mhm. parce que bëri na lu bëri loo xamante nii yaa ngi ko doon gis ci matière plastique donc loolu loi bi dàq na ko. ba amatul ci biir réew mi wala bu fi amee it donc dañ koy jaay clandestinement. donc mu ngi am yokkute. bëri na ci tamit soo amee seetlu da ngay gis ne nit ñi ci seen bopp léegi maanaam fomp ci mouchoir sax sànni ko ci mbedd mi sax dañ koy def seeni i saak ñu def ko ci seeni i mhm. mu leer na ni nit ñi bëgg nañu exactement changer mais tey possibilité bi ñu war a mën a am dëggantaan pour changer moom moo xaw a des soo xoolee tey li ngay gis ni point de normalisation yi ngay gis ci mbedd yi waa ICG di ko teg mhm. bu njëkk amul woon parce que mhm. angle boo jët tuurukaayu mbarit la woon donc yu ci bëri mi ngi am ay changement da ngay gis ne nit ñi ñi ngi gën a bëgg environnement. Mhm. mais problème bi mooy li ci des rek mooy état appuyé. pour ñu mën a jëm ci loo xamante ni dinañu permettre vraiment. Mhm. ñu mën a dund ci condition yu baax. d'accord Modou Fall sa ni kii temps bi daf <laughs> merci beaucoup Milani donc euh, di gërëm rek waa Walfadjri yëpp. Mhm. donc euh, di wax ni fii sama kër la. mais xëy na tey tàggatoo bi may tàggatoo xëy na. tàggatoo la bu am solo ci man. parce que mm. daf ma yitteel trop dafa ma métti. Mm. parce que mënoo comprendre tey. Mm-hmm. fi àdduna toll. Mm-hmm. ñu ne avenir xale mooy lan jàng. Mm-hmm. ñu fexe xale bi jàng ñu gis ni tey am na école boo xamante ni am na plus de sept cent élèves ñaari douze moo fa am. loolu la ñuy partagé muy école dix huit nekk njaareem Limaamu Laay. depuis deux ans xale yooyu ñaari toilette école 18 ñaari toilette moo fay fonctionner hmm. ñetteel bi moom la maître yu yor ñaari moom la xale yi di partager ma def fa dem fa vraiment xale yi tawat ma ko mu hmm. doon loo xamante ni mënumaa ñëw fii te waxuma ko pour suñu kilifa yi saafara ko hmm. parce que mënuñoo defar ay documents séddale ko mairie bi jox ko autorité yi même le ministre de l'éducation il est au courant de ça ça fait deux ans xale yi ñaari douze la ñuy partagé mu doon loo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg naa daal kilifa yi. Mm-hmm. le maire de la commune bu Ndiarème Limamoulaye wala mm-hmm. le maire de la ville wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy parents d'élèves bi vraiment nañu gëstu ne avenir xale yooyu ñi ngi koy sàggane. Mm-hmm. te douche dafa am solo ci doomu aadama. c'est rawatina nag nga toll moment boo xamante ni. dangay ngay génn école bi pour war a mën a dem wuti foo demee say besoin donc yooyu donc mhm. day xaw a jaajëfal baax bu baax moom Modou Fall <laughs> ministre yi moom ak ñi nga xam ne ñooy suñu njiit am na lu bëri li nga xam ne xam nañ ko te xam nañ ni priorité la mhm. te ñu ngi ciy jël dëgg si seen tànk waa mhm. ministère de l'environnement moom kenn waxatul seen wax ndax du benn du ñaar dama leen di invité ci plateau pour ñu ñëw mais duñu kenn chaque fois am nañ excuse suñ demul séminaire ne ba tey kenn gisul ban njëriñ la am dañ leen dénk ministère parce que environnement ki leen ko nga xamante ne mën na ko amal ci askan bi mhm. waaye ñoom ñii dafa mel ni ñoom ñoo amul ñoom ñoo bëggut am recours wala ñoom ñoo amul sañ-sañu toog ci plateau yi wala ñoom ñoo bëggut a wane liggéey bu ñu def wala su dee sax ndax ñu ngi liggéey mhm. c'est la question que je me demande parce que à chaque fois que tu les invites ñu rejeter ces invitations war nañ xoolaat bu ñuy daal mhm. ñëwaat ci askan bi parce que askan bi wax waxtaan ak askan bi ñoo leen fi teg mënumaa dem nag te duma nuyu ki nga xamante mooy Carole Ndiaye boo demee tey ci télé bi mel d'accord bonjour à toi eh, bonne journée à toi. Carole waay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Mélanie sa sa sa miree baax na macha allah. merci sama chérie moom ma génnee fii sama